jërë ngeen jëf mbokk yi wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waay di leen wax ne ñoo ngi kontaan ci yéen comme ni ngeen di kontaanee ci ñun di leen wax ne bu leen fàttee di bës cloche bu rouge bi abonné leen ci wasaare làmb comme ni ma koy waxee chaque jour rek euh, lu dul làmb ñoruñu te bëgg nañ lépp loo xamante ni day jëmal làmb kanam rek ñu doxal leen ko ba mu mat sëkk tey nag ñoo ngi fii Tëngéej feet si fi seet si fi ndaanaan boo xamante ni kenn dootu leen ko présenté muy doomu dàngu bëgg nañu waxtaan ak parce que moment bi gis nañu daanaka làmb tijji na ci huis bëgg nañu waxtaan ak moom ci moom ci loolu bëgg nañu waxtaan ak moom ci toogaay bu yàgg bi bëgg nañu waxtaan ak moom fi làmb toll ndax jamono ji kenn ku ne xam na ni làmb DNS bi Sénégal mën nañ ko wax ndax làmb dekki na Gàmbi ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu dellu si waat ci waxtaan bi doomu daangu nuyu naa la. waaw mosu bilaa bisimilah inna wali yàlla ginnaaw bu ñu sant suñu borom julli sangu sanga yi. di sant suma waajur bu jigéen lool di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des di ñaanal aussi suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ko ñaanal aussi képp ko ku ko fa fekk ak ku mu fa fekk ñu ngi nuyu waa wasaare làmb bu baax a baax. gannaaw ñu ngi nuyu waa wasaare làmb bu baax a baax teraanga daanaka du tuut teraanga tuut ndax yegsi nañ fii fii nii avant tout fii fan la. waaw Ouzin fii moom suñu suñu suñu place bopp la suñu grand frère suñu xarit suñu lépp. muy Ibou Guèye xam nga ndax ak soxnam bu ñuy wax Amina Guiro madame Guèye donc ñoo ko ubbi fii nga xam ne mooy Tëngéej mu nekk place boo xam ne place bu mucc ayib la te li naan kuy kuy wàlli yaan ku nekk rek dafa fekk sa sa dëkk tëggul sunu waa li nga bokk wala li nga moom bu bu wootee moom amuñu amatuñu benn intérêt di dem feneen yeneen place dañuy toog fi nga xam ne ñoo ko moom aussi wan ko àdduna waaw di wax ne aussi xam nga lii waa Tëngéej jaratul ñuy dem Dakar waaw place bu bees nag. mais ñu ngi ñu ñu ngi sant yàlla parce que mu ngi dox ndànk-ndànk waaw mais ñu ngi oo ñëpp ku fi ñëw daal xam naa ne di fi ñëwaat. Mhm. ah nit ñu fi jot a ñëw de gis nañ loo xamante ni moom daanaka daa mel ni ñoo ngi dakaar am na yu baax yu fi am ndax maa sama cameraman bi jot nañ cee doo yoo xamante ni xéwale na trop mais bu ñu jógee ci loolu gis nañ ñu daanaka làmb tijji na. Mhm. waaw mën nañu wax ne tijji na tijji na mais xam nañ ne bëreet bu gàtt la la tijji waaw lu lu lu compliqué daal fi làmb tijjee doon nañ ñun ñëpp doon nañ yuuxu pour mu tijji tijjil tijjil tijjil nañu làmba ji nee la première lay tijji ku bëgg promoteur bu bëgg mën nga dem seen te nga régulariser combat nga tëgg mais ban façon la ñuy tëggee làmb wii ko masul am si làmb donc loolu aussi dafay laaj ay ay toog waxtaan ak ay jàngat yu bari. Mm-hmm. man xaw na ma jaaxal parce que doon nañu wax nañu ibbi làmb ji ñu def ko huis clos mais façon bi ñu koy defee huis clos est-ce en tant que mbër yaakaar nga ni promoteurs yi dinañ dinañ ci dugal seen xaalis wala dinañ investir ñu ko gars yi di waxee est-ce que tam bu ko investir est-ce que dinañ ci génn. bon ah yaakaaruma ko de bu dee xel pour xalaat rek loolu moom wax dëgg yàlla yaakaaruma ne promoteurs yi moitié bi sax dinañ dem di tëggi làmb waaw parce que niñ ko façon bi ñu ko ubbee dalul xel parce que tëb tëb rek tey jii ko par exemple ñun CNG ñooy suñu njiit ñooy suñu kilifa. tëb tëb tëb rek ne ñoom ubbi nañ làmba ji na waar doy waar. je pense bien que ne bi ñuy ubbi làmba ji waroon nañu or ñi nga xam ne tey jii ñooy investir si làmba waxtaan ak ñoom si ban formule lañ jëm ba pare mais tëb tëb rek ubbi làmb ne le premier te oowuñu promoteurs yi waxtaan ak ñoom je pense que promoteur bu si dem aussi dangay ngay xaru rek am nañu ko man nag am nañu ko mënu quoi doone ñëpp ko am na ñu ko mën am na ñu ko mënul am na ñoo xamante ni jotoon nañu taxawal combat ñi seen combat desoon na benn fan ñi seen combat desoon na deux jours ñi seen combat desoon une semaine ñi seen combat desoon na un mois bu ñu toogee toog ñu ne fii ak euh, presque un mois wala fii ak euh, une semaine làmb ji tijji na. est que mbër yi nga xamante nii amaguñu komba wala est-ce que ñi nga xamante ni laalaguñu woon avance comme sa classe gi yaakaar nga di ngeen bëre ci saison bi. non ñi amul woon moom c'est-à-dire ku si ku si am xel sax. sa xel sax warul nekk ci combat pour bu ñu waxantee dëgg rek parce que boo xoolee date yi fi nekkoon ñaamoon combat bu ñu tàllalee date bi yëpp mënuñu fi bëri ren parce que boo xoolee tey ji le premier kañ la si une semaine koor gi kañ la le traise donc un mois treize jours la ñuy la ñuy la ñuy tëgg ñaata dimanche am ak ñaata samedi ah donc man pour man da man da wax dëgg yàlla waxuma dinaa bëre wala du ma bëre mais ay garantie yu wóor moo tax may jël avance jàmbur di ko di ko bëre quoi parce que xanaa peut être mën nañ signé combat ñu ne déwén la ñuy bëre quoi mais boo xoolee combat yi fi nekkoon bu ñu waxantee dëgg rek man pour man avant ñuy ubbi le promoteur la le premier parce que ñoom la premier bi tëbuñu tëb rek jàpp ko lu ñu waxtaan la mais durée waxtaan boobu mënoon nañ ci jël yan date ñoo amoon combat yan mbër ñoo ci waroon bëri ñu ñu ñu arrangé ko boo xam ne même bu ñu jàpp ne le premier la la la ñuy ubbi officiel pour ku bëgg ñëw tëgg. mais bi ñu génnee le premier titre boobu waroon na fekk aussi mbër mu si nekk date nga xam aussi date exacte bi nga war a bëre parce que tey ji le premier yan promoteur ñooy tëgg le premier manul ne làmb kenn da ko mën a tëgg une semaine bu ñu waxantee dëgg rek ña ka man bari na bariwul book ñi mën a tëgg làmb nii ren jii bariwul bariwul parce que tey ji Ouzin huis clos mosul am si làmb Sénégal. Mm. ñu indi ko. yow tey ji par exemple nga jël sa xaalis. à rek quoi pour bañ a sori nga jël dix millions nga investi si làmb nga ne dangay ngay dem ci huis clos yan base ngay defee huis clos tey jii mbëri jot a am combat lan moo tax promoteur tëgg leen seen mbooloo la. Mm-hmm. léegi mbooloo moom buñ ko éliminer mais dafa am lu lu dugg Sénégal lu dugg si àdduna bi yëpp muy mbas mi fi dugg ñëpp aussi di ñaan mu gaaw fi jóge bu fi duggee nag ñu ne dañuy dem huis pour man état bi am na am na am na lu fi nekkoon pour Covid bi. pour man am na am na mesure yoo xam ne war nañ ko génne wala am na moyens yoo xam ne war nañ ko mën a génne cest à séddale moom manul mat ñii dañuy am lii ñii am lële mais waroon nañ dem ci CNG teg fa yenn moyens yoo xam ne CNG bépp promoteur buy tëgg dina am nu muy taxawee ak yow ba maanaam affaire bi wàññeeku tuuti. parce que parce que ñemee. parce que huis clos bu ñu koy wax moom lu ci bari sponsor moo tax te nekkatul ci làmba ji bu ñu xantee dëgg rek promoteur yi fi am sponsor bu mu sañ def huis clos ah xëy na mën na am mais man gisaguma ko. beneen bi mooy mbooloo mi amatu fi mais léegi kon li fi nekk mooy état bi dañu ñoo tëjoon làmba ji durant presque un an xaw un an la presque boo xoolee le 14 mars lañ ko tëjoon la quinze mars gàmmu gi dafa doon bëri donc mars lañ koy ubbiwaat donc un an état bi nañu xool ñoom nan la ñuy taxawee ak CNG aussi CNG dimbali promoteur yi ñu am fitu tëgg loolu mooy yoon mais bi amul benn promoteur doon naa seetaan avant Covid bi gars yi naan huis clos prenant pour tëgg nañ dem tëgg man de pour mun bu sama xalaat bokk li ma gis dama jàpp ne ki fi def benn face to face muy Gaston Mbengue rek moo fi am peut-être moyen wala fitu dem tëgg làmb eh, parce que man waxtaan naa na ay promoteurs yu bari ñu si bari bi ñu jàppee le le premier noonu sans aviser leen sans waxtaan ak ñoom ñoom xamuñu fa lañ jëm ñenn ñi lan lañ wax ku mën na dem man manuma te bari na ci ay morom quoi. donc état bi nañu accompagner CNG CNG accompagner promoteurs yi ñu def huis clos ñu bëre làmb. ok su ñu jugee ci ci CNG bi jugee ci promoteurs yi damay ñëw ci mbër yi ndax dañ ci gis mbër yoo xamante ni euh, jàppale bu demeewul noonu te laaloon nañ avance nga toog un tax ku ne xam na ne avance su mbër boo ko yoxee mbër boo toogee deux mois boo ñëwee ñaata ne ko ñaata nga dese mu ne la jeexal naa mu toog presque un an yoo xamante nii simeekuwul bëriwul di entraîner jëmale kii nga toog benn une semaine boo xamante ne nii toog rek ne ko damay tijji làmb ji est-ce que mbër mi dina pare physiquement wàllum entraînement wàllum mystique ci lépp est-ce que dina ko pare pour mën a toog euh, préparer benn benn benn deux semaines wala benn un mois pour dem sëgg bëri est-ce que mbër mi dina pare en tant que mbër yow. non mais loolu moom yombul. gis nga cest à il faut aussi ñun tamit mbëri am na loo xam ne dañ koy comprendre muy Covid bi si ñëpp la dal dafa dal dafa impacté promoteurs yi parce que seen xaalis dañu jël teg ka te xamuñu woon. fan lañ ko teg mbëri aussi jël seen xaalis aussi ñoom investir ko fenn tey jii mais cas force majeure moom bu amee maanaam métit bi fépp lay fépp lay frappé si si huis boobu aussi du ñàkk am na mbër yoo xam ne force dañuy allégé waat seen cachet force parce que soo ko deful aussi doo bëre ah man de su ma nekkoon si position boobu nu ma def fut bëre rek ba te contrat boobu tàkkaliwu ma ko rek man man man man dama koy def wax dëgg yàlla mais nag aussi am na mbër yoo xam ne tey jii c'est-à-dire Covid bi ñoom ñoom la gën a impacté mooy mbër yi nga xam ne par exemple à 15 jours moo desoon seen combat wala en un mois ñooñu tey jii fa la ñu jëm ñëpp pare pare woon nañ ci parce que man j'en ai un témoin ku si mel ni tey jii gàmmu gay la 14 lañ tëj le 15 la waroon bëre maanaam ay añam lépp pare woon na pour te ku pare pour añ rek pare nga pour bëre ji donc ñooñu pour ñu waat aussi dina laaj aussi. staffu mbër yi ak mbër yi nga xam ne ñoo si ñëw nag ak contrat ak ak ak promoteurs yi ñu toog waxtaan ku si ne ko xool nan ngay dimbalee sa morom ba affaire bi mën a réussir loolu rek moo fi sës quoi. loolu moo fi sës mais yow fi mu toll nii euh, d'accord nga ci ñu ubbi ko pour mbër yi mën a tàqali ko promoteur promoteur yi mën a tàqali ko ak mbër yi. si loolu loolu loolu mooy yoon. loolu mooy yoon dañ ko war a ubbi parce que tey jii imaginez un an un an ngay entraîner wala plus de un an ngay entraîner te la ngay entraîner yow xamoo kañ nga koy pratiquer. dafa dafa dafa metti doo xam sax ban ban ban planning ngay jël pour entraîner doo ko xam man leer na ma ne bi ñu xëy la première bi la ñuy tijji am na mbër yu bëri yu tiit non da ngay tiit parce que tey jii imagine un an et quelque bu fekkoon yow nga am benn relâchement bi ci entraînement bi ñu ne la tey ji par exemple la 15 ngay bëri le 15 mars fan nga jëm fan nga xay préparé manul nekk du si moyen du si du ci état du si dara donc dafay dafa dafa dafa dafa doy waar quoi dafa doy waar hmm. man daal li may wax mbëri nañ ñu góor rek ku si parewul puusal sa date ba pare. ku si parewul puusal sa dat ba noppi. parce que làmba yemul yemul yemul tey làmba yemul yemul tey mooy mbër mu nekk da nga am plan de carrière mais tey jii su dee da nga bëgg finir ak ak ak contrat boobu ba tey jii mu leer na la yow pare woo aussi nga dem bëri ñaaka yaakaar teg sa bopp. gis nañ làmb ji fi mu toll ba tax na mbër yu ci bëri ñoo ngi daw di dem Gambie pour bëri ji man démb ak barki démb am na ci ñoo xam te ñoo may woo nee nañu pare nañ ñi envoyé nañ ma seeni photo nekk ci état di waaj pour dem Gambie naka nga gisee loolu. ah mooy mooy li wan nag mooy lay wan ne cest ñun passion bi ñuy def dañ ko dañ ko bëgg dañ ko bëgg moo tax te tey li nga bëgg fu mu nekk du sori si yow te tey ji imaginel mbër mbër yow defoo dara bëree moom nga concentré wu pour réussir si da ngay xëy matin entraîné ji midi nga entraîné ji le soir nga entraîné ji tey ji si une fois yow gisatoo li nga xam ne moom taxoon ngay entraîné ji pour pratiquer ko da ngay am lu la metti mais soo ko déggee ba maanaam Mali sax da nga am ay moyens pour dem pour compétir sax da ngay dem quoi. moo lay wax de jeunes yi bëgg nañ li ñuy def. amuñu ci amuñu ci benn frontière te noonu noonu mu dalee mbëri aussi noonu la dalee promoteur yi parce que am na ay promoteurs Sénégal yuy dem Gambie di tëggi donc affaire bi gaaka ne gagne-pain moo ngi ci mais amour aussi moo ngi ci est-ce que jotul tamit comme ni nga ko waxee dem Gambie est-ce que jotul euh, ñu jël làmb ji yóbbu ko comme maanaam ci lu mel ni MMA ndax gis nañu Reug moo ngi ci kii di Siteu moo ngi ci kii di Bombardier moo ngi ci ba ki démb bi ma seetee Alliance Baldé nee na mooy man maay mbër bi gën a ndaw boo xamante ni maa ngi dem MMA ndax bokk na ci benn tournoi boo xamante ne Sénégal la euh, dimbali ma waaye Maroc États-Unis ak France xaw ma est-ce que pare nga pour pour pour défil ji loolu. <laughs> si pare nañ wax dëgg yàlla dañuy gisagul bunte beeg yooyu noonu rek mais ñun ku ñu xam ak suñu style ak façon bi ñuy bëree moom. élément warul nekk lu lu difficile wax dëgg yàlla man su ma gisee moyens yi moom wax dëgg yàlla wala yoon bi. awma lu may lu may hésité quoi parce que làmb bi ñu def fii moo gën a métti foofu te eh, bon il paraît foofu la muy génne fii génn gu ko donc ñun suñu gisee bunte bi incha allah dinañ ci te ñoo ngi ci pexe yi sax xëy na nag ci média lañ toog dañuy interpeller aussi képp koo xam ne gis nga ni bunte bi ñun war nañ si mën a jaar rek ñu ngi lay ubbil seen ñaari loxo nga accueillir ñu ñun loolu suñu sport la waa suñu sport la te ñu ci duggee dinañ xa ne ñun ñoo ko moom. mais mais mais est-ce que est-ce que est ngi koy bàyyi xel ëllëg ci biir. nga dem euh, bokk ci ñi nga xamante ni dañuy teewal Sénégal. si bien sûr parce que man boog su ma doon dem bay dugg ci MMA dugguma si pour rivalité ak benn benn sénégalais su ma doon si dugg parce que man am na loo nekk si man loo xam ne man xam naa ko te métier boobu ñuy MMA boobu ñuy sport boobu man lu yomb la ma ma àgg ci fi ma si war a àgg parce que xeex la rek. te boo dëkkee si dëkkule bi boo xoolee bon amul différence ak xeex làmb moo gën a metti fuuf mais wax dëgg yàlla ñun pare nañ pour représenter Sénégal fépp ci àdduna ci MMA waaw. pare nañ pour représenter Sénégal fépp ci àdduna bi mais bu ñu ñëwee ci sa carrière tuuti doomu dàngu kañ la dugg ci làmb. man maa ngi dugg ci làmb mille fin deux mille dix laa dugg ci làmb. waaw. kon su ma juumul def nga onze ans. waaw def naa onze ans ci làmb def naa onze ans waaw def naa onze ans de carrière. ñu gis ne combat ay xaw na bari mais carrière bi dafa xaw a yéex. lan mooy problème bi danga amul jàppale wala boog naka la demee parce que ñu ci bari dañuy gis doomu dàngu day yéeg ba ci yàgg xaw a taxaw jël komba dawaat ba ci yàgg xaw a taxaw jëlaat combat lan mooy problème bi da nga amul staff boo xamante ne ni wala da nga amul promoteur boo xamante ne ni day yëkkati ne la kan nga bëgg nga ne ko diw wala boog gars yi ñoo dama ko am man. waaw question dama si sawaraat tontu parce que question bu bari woo xam ne souvent su may defee interview dafay ñëw te lu ñëpp aussi dafay nekk dëgg mais loolu cause yi ko waral bari na. du ma ne du ma ne staff tey jii par exemple man nekk naa mbër moo xam ne sama génération néew na mbër mu si am vingt combats néew na lool lool lool lool mbër mu si am vingt combats ak mbër mu si am seize victoire quatre défaites mais li li waral tey jii loolu mooy dafay dafay reflété wu si lu bari tey jii doomu daangu nekk na mbër moo xam ne Tëngéej la dëkk te ñëpp xam nañ Tëngéej dafa xaw a éloigné tuuti par rapport ak Dakar ci ci ci làmb te tey jii ñun benn kaar bu ñu jël pour yóbbu ko Dakar dañuy fay lu minimum vingt cinq te ñëpp xam nañ ne autorité tëngéej yi nga xam ne ñoo nekk tëngéej cest à amuñu benn xaw ma cofeel bi la par rapport ak ci ci làmb loolu da ciy da beneen bi mooy amuñu benn promoteur boo xam ne da ngay taxaw nga ne doomu daangu laa bëggal adversaire non non ñun souvent promoteur yi ñuy oo yëpp pour tëggal ñu combat dañuy oo ne diw laa la bëgg a booleel diw moo fi nekk aussi ñu nekk ay sportif di entraîner te mbër boo bëree mbër nga soo bëreewul doo mbër. suñu entraîné nag ba fin saison gis ne tey jii moom lii moo fi sës dañuy obliger aussi bëre parce que saan bu ñu bërewul dañuy ane balance donc loolu loolu loolu loolu loolu si la bokk aussi mën naa wax ne bon beneen bi aussi muy par rapport ak ñun man style lañ yor ci ci ci làmb boo xoolee doomu dangu ñëpp xam nañ ne neexul deret ci ci làmb c'est-à-dire agressif na maanaam lépp lu ñuy séntu ci mbër moo ngi ci moom xam nga te kenn du ko wax ak ragal donc mbër aussi bu ñu gisee yow ne yomboo yomboo jëflanteel dañuy def le tout aussi pour pour pour pour éviter la aussi boo xoolee maanaam ci ci ñun la ci promoteurs yi la ci adversaires yi la aussi ak si aussi gox bi ñu dëkk waaw mais aussi si gox bi ñu dëkk am na ay nit ñu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ci amoon ñaar wala ñett rek kenn waxatu ko. Mm-hmm. buñ ci amoon ñaar wala ñett kenn waxatu ko. Euh, làmb ji bari na ci ñoo xamante ni nii man li ma ci jaaxal li ngay wax nii def cee bari ñoo xamante ni koo ci seet si mu ne ñemu ñoo jël sama avance. boo ko doon seet mën nga ci génnee mille te ku ci nekk la même chose lay wax après yow dangay dem ba da nga naan waa mais léegi ci kan la te pour moto pare nañ pour tëkk. d' accord man dégg naa li nga wax léegi man firnde bi ma lay jox rek par exemple mooy euh, man ban par exemple ban adversaire mën nga ma limal yow man duma ma lim kenn nga ne ma diw ax diw ñooy sa adversaire amaana koo ci lim. dinaa la ne delloo na sama avance te man mbër du taxaw fi ne mu ne doomu daangu delloo na avance ki delloo en somme dafay nekk la plupart combat boo xam ne bon dañ naan diw moo man doo si sawar sax pour bëri si quoi te du delloo en sax dama lay wax carrément non bëriwu ma diw parce que nga jël combat boo xam ne soo ko daanee ñu ne yaakaar man loolu du du amul benn enjeu bi man damay bëgg di bëri combat yoo xam ne dañ naan lii mooy combat wala diw moo man doomu daangu mais yow mën nga ma limal ay adversaire yoo xam ne ñii am nañ combat ñii ñu combat koo si lim rek dama lay wax promoteur dox nañ sañu te si diw la yàqu. loolu mën naa nekk mais man euh, dama gisoon lenn bi nga bëre Farouz dama gis ñi fa bëre ñëpp loolu dama ne promoteur bi ah du ma ko sànni xew mais dama ne mënoon na koo def kalaaf yéen ñeent parce que yaa ngi fa woon góor soog ngi fa Tyson a ngi fa Franc ngi fa loolu ku ko defoon tournant day fay. waaw loolu ku ko defoon tournant day fay ndax boo xoolee ñi ma la limal ñii ñoom ñu ñu bëreel ñëpp ku ci nekk am nga ci ndam loolu bu ko defoon tournant day neex mais mun naa limal ñett xam naa ne kenn ki moom booy na say nopp muy góor soog Euh, Cobra moo ngi fi Bébé Saloum moo ngi fi te ñoom ñoo ñi ma la limal ñëpp kenn amu ci combat. waaw boo xoolee tey jii ñi nga lim ñëpp su may potentiel adversaire lañ potentiel adversaire mais làmb aussi dafa am na muy doxee tey jii ñi nga lim ñooñu ñëpp mën naa wax ne Gora du ñu toog deux mois wala un mois boo xam ne promoteur oowu ñu wax si ñun combat am na benn promoteur bu ñu oowoon di ci wax combat bi promoteur bi sax moom mën na ma tayoo foofu la dëkk moo góor a ñoo dëkk te ñun aussi pare woon nañ wala pare nañ pour bëre combat boobu la si des nag promoteur bi moom mën na leeral parce que promoteur boobu bi mu toppee maax góor a soog antuwul man doon na mu utal beneen adversaire donc combat boobu du si man la yaaxoo. jamaïcain la wala. du si ñooñu quoi du si ñooñu moom xam nga tur bi sax exactement miinu ma ko quoi. waaw Ousin exactement. Ousin la quoi parce que moom nekkoon na ak suma staff sax pour tëgg beneen combat. Mhm. ah làmb ji de man dafa xaw a yéem man su ma toogee gis doomu daangu affiche di taxaw gisuma koo kombaawam dégguma ko man dama naan quel est le parce que doomu daangu boo nee tëngéej boo nee am amaneex su ma jumul moom nga ciy teg te defe naa ni képp koo xamante ni war naa bëgg amaneex wala képp koo xamante ni laaj na amaneex wala képp koo xamante ni nii bëgg a yegg fenn fii na xaama dugg tëngéej xaama dugg faas xaama dugg géejuwaay kon jaadu na euh, yow wala ñenn ñoo xamante ni nekk nañ bëgg mag bi tëngéej balaa làmb yi taxaw seen combat woo na mën a taxaw man loolu jaaxal na ma taw. non gars yi très sedd la ñuy rek mooy li ma rek ñu bëri du ñu sawar ci bëri doomu daangu parce que maanaam lépp lu mbër di indi ci làmb rek moom da koy indi te mbër ñi comme li rek ñun ñëpp ay mbër lañ mais. jotul tamit nga wàññi tuuti. non wàññi nañ parce que gis nañ ne xadaar bi am na lum ñuy xeeñ xadaar bi parce que am na mbër yoo xam ne dañuy jël sax mais balaa ñuy jël ñun dañuy mujjee def sacrifice pour pour pour bëre mooy ci kase bi la ñuy obligé def wala ñu obligé wàcc jël koo xam ne bëgguñu ko woon jël mais bon wàññi nañ loolu bu baax daal safara si moom wàññi nañ dañ ci def ndox mu sedd pour gars yi ñime ñu ñu jël quoi boo xoolee tey jii ma dox la benn exemple rek am na benn face bi am barki démb moo jaay par exemple suñu grand Modou Anta moo jën ju seen combat taxaw na que le meilleur gagne mais ñaar ñooñu ñëpp amul benn promoteur boo xam ne toppoo leen pour ñu bëreek man amul te man damay nekk si dynamique benn dynamique victoire di bëre di daan nga gis ne mbër mi par exemple Modou Anta am na beneen mbër mu mu jël mbër moomu nekkul si dynamique victoire par exemple dafa combat bu médiocre lañ fi mujjee bëri mais moom dafay préférer def si choix am ci ci keneen pour bonne cause après yow doo comprendre quoi. yaa ngi Anta nekk combat woon bu neexoon. non amateur yi ñoo ko plébiscité te promoteur yi aussi dox nañ ko. te promoteur yi ko dox du amuñu sax ak relation ak man dañ may oo na ma sa combat ak diw lañ bëgg la plupart man du ma am problème dama lay wax demal nga waxaax diw ba pare su paree pour bëreef man rek man pare naa mais à la fin après dañuy ñëw indi la beneen version quoi après bon anyway doo sonn si loolu ko waaw. soo ma doon wax koo xamante ni nii euh, jàmbaar la te der la te yaakaar nga ne boo ko nee diw kooku amul lu muy lu muy lu muy lu muy daw ci doomu dàngu xaw na mel ni yow ci am fit am kii kan nga may wax ñan nga may limal ñoo xamante ni yaakaar nga ni tey jii ñu am fit lañ wala ñu ñemee jàmmaanloo ak yow lañ limal ma ci ñaar. dina dina xaw a jafe peut être def nañ ko ñu wax ko mais mbër mi comprendre soo xoolee style doomu daangu gis style lu Ndoye da nga naan lii combat la ñu topp ko aussi laaj ko tënk ko pour bëre ak moom mais moom comprendre nekkul moom nañ ko pare wala dañu indiscipliné moo tax ñu koy tëgg façon bi làmb dafa tënkante et ñu ko tëggee ay promoteur demancé ko. da nga da nga ko fekk stade dëkk ko wala da nga ko jàll ay baat. tënk naa ko tënk bu mante ne boo xelaat rek si àdduna tënk naa ko pour suñu koo combat bëri ñu suñu combat am mais à la fin moom nee na bon ba VIP bu ñu doon ko fay cent millions sax bëriwul donc loolu jaratul ñu si sori quoi te bi ñu koy tënk li ñu gis si moom rek moo taxoon ñu koy tënk mooy su ñëw stade day indi état macha allah. su ñëw stade day indi mbooloo macha allah day fecce fecce bu neex te aussi jàmbaar la du du reculer maanaam day bëre ba keroog muy ñàkk loolu la ñu gisoon si moom ñu ne kii suñu combat bu taxee dina nekk combat bu neex critères yooyu rek la may nekkul loolu la leen mais bi ñu defee loolu bon moom giseewul noonu quoi donc ñun loolu jaratul ñu si ñu si sori. parce que bu ma defee combat ba toll fi nga toll bëre wax Moussa Ndoye mën nga bëre ba bàyyi làmb doo bëre ak moom quoi cause yooyu moo taxoon ma tënk ko mais moom bon il a mal compris ñu jàll loolu si leneen quoi. su ma la àndaloon Lac Rose ak fi làmb tool loolu nga may wax. mais ko la parce que tey jii ku taxaw nga ne doomu daangu Lac Rose kan moo war a bañ kenn mënul bañ sa morom logique làmb moo ñu boole moom am na lu def si làmb te ñun aussi dañuy sawar ak bëre ak ak ak njàmbaar te Lac Rose buy buy buy buy buy buy maanaam buy bu feebaree ñëw sax da ngay gis ne kii ak njàmbaar lay bëree donc ñu koy ñaanal wér. ba pare yàlla na ko yàlla may. kay tànn na fi mu donc combat boobu promoteur yi ñu ngi may dégg man pare naa pour bëri ak Lac Rose. Lac de gëm naa ne doo ko yóbbu benn avance mën na la delloo ko te Lac Rose combat am da ciy xëpp kaani ba mu saf-saf. moom jantal la moom booy taawun la booy dakaar la xam nga man pare naa pour bëri ak Lac xanaa loolu ko neex na promoteur yi ñoo ngi may dégg. mbaa mbaa mbaa duñu xëy promoteur seet si la dinaa woo Jam dinaa woo Baba dinaa woo Baba Euh, baaba dinaa ko woo ñu xool ba xam baa duñ àndi baa duñ ñëw seet si la nga nga nga yéegal kase bi. pour promoteur yëpp dégg ma rek man doomu daangu pare naa pour bëri ak Lac Rose. gis ngeen moom doomu dàngu pare na pour bëri ak Lac Rose amoon kàddu yu mujj ak lan ngay wax autorité yi waa Tëngéej yi pour ñu dugal seen loxo ci làmb mën a jàppale xale yi ndax dina wàññu chômage bu bari ak kàddu yu mujj yi nga booleel ñu ko. waa li rek mooy ñun tey ji Tëngéej ñun làmb la ñu am tey ji ñëpp xam nañ ne Tëngéej bon yàgg na ci làmb yàggul ci làmb mais tey ji Tëngéej maanaam bëri na ay champion yoo xam ne maanaam ak jàppale moo tax ba léegi ñu taxaw fi ñu taxaw boo xoolee ak jàppale parce mbëru tëngeej bu nekk bu demee Dakar dañ koy jox cër dañ koy respecté des fois nag nit ki li nga dëkkal dëkk wala ki la jegeñ doo ko xam mais wallahi azim tey jii mën naa wax ne tey jii bëri na mbëru tëngeej bu ñu dëkkoon Géejawaay wala ñu dëkk Pikine wala ñu dëkk euh, beneen dëkk muy parcelle muy ainsi kon kenn waxatu leen ci làmb parce que lépp a ngi mais tey jii fii kenn manul kenn ku ñu fi jàppale rek moo fi am boo xoolee c'est-à-dire tëngeej amuñu promoteur. doo dégg benn nit muy politicien boo xam ne ñoo ngi ko fiy tudd parce que moo ngi defal dara mbër yi lu extraordinaire man amaana ki ma lay tuddal sax doo ko xam keneen aussi ku muy tuddal doo ko xam mais dafa jaadu suñu maire yi ville bi nga xam ne aussi ñoom ñoo fi nekk ñu am benn taxawaay bi ci làmb amuñu ko nag wax dëgg yàlla mais parce que ñoom la gën a war xam nga tey ji Ouzin mi liggéey alalam ba tëdd ci këram moom moo ko moom moom lay neex mu def ko fu neex mais tey jii ku si mel ni mairie de la ville budget sport dafa am donc nañ ñu koy dellool aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom loolu mooy loolu mooy yoon kenn mënul jàppale ñëpp nag mais nga def le maximum ba xam ne tey jii soo jàppalee ama neex man dinaa ci sama bopp yaa ngi dégg eh, ñu ngi leen di interpellé waat lool bu baax a baax xam nga ñu teg maanaam ñu ñu ñu teg loxo làmb Tëngéej daal parce que am na ñu bëri jeunes yu bëree bëri bari dañu yaakaar ci làmb donc nañ leen nañ leen jàppale. wala nañ ñu jàppale man loolu laay wax quoi euh, aussi di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal pour bañ a tudd rek parce que boo tuddee rek da dul doo doo doo matal daal doo juum da nga dul matal mais daal képp koo xam ne man suma carrière durant suma carrière ba tey fi ma agsi yaa ngi may jàppale maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan àdduna bi aussi yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal gi ñu nekk yàlla na fi jàmm yàgg parce daal jàmm si la lépp xaj gis ngeen jàmm ci lépp xaj ni ma koy waxee rek lu dul jàmm jàmm ko gën euh, di gërëm sama caméraman bi nga xamante ni mooy kàggu euh, di gërëm équipe bi yëpp jii li sëñ Bas aadama ah Mbène ñëpp maa ngi leen nuyu ak kilifa gu mag gi moom bëgg ko tudd tëram di nuyu Absa Diop Absa Diop borom euh, cosmétique bu mag bi di nuyu yaajoor Joor ah ñëpp maa ngi leen nuyu ñoom jaaykatu sandis beeg ah sang ak Kumba. sama jabar ju baax ji Kumba maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen wax dig daje ba beneen yoon ak sama président Lat Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi gis ni mu jàppalee gars bu baax a baax waa Géejawaay waa Parcelles ñëpp moo ngi leen di jàppale di leen jox dig daje ba beneen incha allah jaajëf maa leen di wax ne leen ah rek baramtoo fex leeral